alam taraw anna allaha saqara lakum ma fi samawati wa ma fi l ard wa asbaqa aleykum niamahu zahiratan wa batina ila axiri gis ngeen ci gàttal balaa ñoo ñëw ci lu ñu amal solo dañoo wax développement ak lañ ca wax lépp mais loolu lépp nag dans un climat apaisé mais li ngay def tàlka bis bu jot ma wax leen que bu xëyee ngoon gu jot nit ñay gaat nga ay yàlla teg fa ay rek xam nga dangay ngay yeewu gis à la une le vendredi de tous les dangers <laughs> mercredi de tous les dangers ñi wax ne yow ke bu leen jàngi toog leen xale yi bu leen dem tey ku la dem nag nga koy togg di ko togg ba nit ñëpp toog waaw bu dee vendredi bu jot ñëpp toog ci ci seeni kër kuy produire ti seet leen rek bu dee àllarba ju jot ñu ne eh, mercredi de tous les vendredi ñu toog ci semaine bi bu yàggee investiseur yi ñu amoon seen xaalis jël ko wala duñ ñëwaat kon talkala te nuy gàtt nga li nuy wax bu ko defee li yàlla rotal ci réew mi nag walla ci nit ñi man dama bokk ci yàgg na ñi gëmul jàmm nanu ñaan jàmm nanu ñaan jàmm yow jullit nga foo jullee ba ba ne assalaamu aleykum kon boobu lu mu tudd kon nag réew mi dafay am jàmmi jàkka am jàmmi pénc ma am jàmmi kër sëriñ ba am jàmmi am jàmmi kon bu ci yàlla moom déet gis nga jàmm ci conscience lay ne jàmmal du lu ñuy wax lu ñuy dunde la jàmma du lu ñu nangal loo bëgg la kee bëgg ko te kenn rek mooy joxe jàmm ci kaw nga bëgg ko mooy yàlla bëggoo ko mu seetaan la gaa yi tee ni nii xëcc kee xëcc mu ni tip fee ngay dal kee dal fële am vide bu nekk seen diggante kon jàmm ji ñuy wax bis bu jot nanu ko dunde jàmm du jàmm benn catégorie de personne boo xamante ni dëggantaan bu ay échéance di bëgg a jot di nangam di bëgg a jot ñu ne nanu ñaan jàmm ci fan ci réew mi réew mi dañ kaa war a ñaanal jàmm bis bu jot waaye gëm naa ni ñaanal jàmm sa réew mooy ngay liggéey di produire fexe ba les inégalités ndool gars yi man ko fay jëlee jàmm dañ koy sécuriser par yooyu jàmm pour jàmm wax mais kaamil yi ngay wàcce dafa am ko ko moom yàlla du ko nuy ndax kaamil bi ngay wàcce ndax yaa koy yëgaloon yow ba koy wàcce <laughs> seetal rek li am solo mooy la ca biir du du yi ngay tiim kon yàlla du buur bu ñuy caaxaane bu ñu bëggee dara naka conscience ci nangu nit ki day jàmmoo ak boppam jàmmoo ak yàlla jàmmoo ak bi jàmmoo ak sa njaboot yow jàmmoo ak yàlla njaboot gi nga yor jàmmoo ak ñoom parce que doxaloo ca dëgg ña nga seqal koo wax du dëgg nanu jàmmoo nanu jàmmoo nañu bi ci des ndax fukki nit ñooy 17 millions de sénégalais ba ñoom rek ñoo mérité jàmm bu ñu ko amee ça va bu réew ma tàkkee ñu ni kon nanu ñaan jàmm anuñ leen 17 millions yi ci des loolu mooy kese kon jàmm ji nay jàmmi sénégalais naka ñépp bëggandoo moo xam société politique la les partis politique la société civile moo xam ñi yorul sax nangam mais nañu jàmm dañ koy togg ci conscience yi togg ko ci nit ñi mu gën a siiw di gën a def boo yeewoo suba bu njot ñu ne la mercredi de tous les dangers vendredi de tous les dangers semaine bépp nga am ci juróomi vendredi wala ñetti vendredi mais mani nu jàmmay taxawee